naxandoo comme jigéen Sénégal yëpp comme jigéen àdduna yëpp loolu moo waral bis bi ñu am nag ay doléance yu ñu posé mooy dañoo tabaxal këru gone fii pour ñi nga xamante ne dañoo am ay doom ñu mën di indi seen doom yi leen fa garde ñu mën a def seen liggéey normalement mais loolu dafa war a ànd ak ay mesures mesures d'accompagnement ñu ciy ñaan suñuy autorité ñu jàppale ñu ci wàllu transport wala ñu wàññi njëg parce que dafa xaw Euh, cher tuuti donc ñu wàññi njëg li ñu jël benn côté jël ko en charge ñun ku ci am sa doom boo ko indee fay bi mën a wàññeeku tuuti donc loolu bokk na ci euh, doléance yi nga xamante ne moom la ñu posé euh, ci wàll thème bi nga xamante ne moom la ñu choisir aussi dañu gis ne jigéen ñi dañu dellu ginnaaw ci wàll internet te am na ay outils yoo xam ne dañuy permettre ñu mën a ñu gën a xeex euh, pour ñu jot suñuy suñuy ak su suñuy yelleef donc loolu ñu ciy ñaax aussi jigéen ñi mais aussi autorité ak góor yi nga xamante ne ñu ngi bëgg ñu gunge ñu ci loolu ñu gën a jàppale jigéen ñi pour jigéen ñi mën a euh, am ay taxawaay bu dëgër ci wàllu internet loolu day permettre ñu gën a jot seen àq ak seen yelleef dañuy euh, lancer appel ndax dafa am yoo xamante ne ay danger la yuy jóge ci wàll internet ndax gis nañu ay jigéen yoo xam ne dañ leen di euh, xaw ma bundu xataan laa koy waxee mais day am euh, di leen di ex voilà exploité euh, ci internet di leen euh, def naka su dul noonu donc ñuy wax suñu doomi jigéen ñi aussi ñu moytu moytu loolu parce que loolu euh, mën na delloo gannaaw da nga xamante ne moom la ñuy xeex mooy ak ak yelleef bu ñu gën a ci développement bi ñu bëgg pose de parce que ñun ak góor ñu ñun ñooy subir ñuy ñooy am même formation ñooy jàngandoo même école ñooy am même diplôme donc jigéen ñi war nañoo àgg ci euh, poste de responsabilité yi nga ne moom la góor ñi di am dëgg la ñu ngi koy am naam mais dañuy demander pour gën ñoo gestu ndax li góor mën jigéen mën na ko te li góor te jigéen li mu mën boo ko ko xañee wala nga nga nga tax ba du ko doxal xañ na développement bi dina am luy des donc boo bu ñu nee nañu ñaari loxo mooy takk tubéy te mooy takk sër donc ñaari loxo yi bu ñu dajee defe naa ne doole bi day gën a day gën a am maanaa moo tax ñuy laaj vraiment ñu gën a jox jigéen ñi cër ci côté boobu gën leen dénk ay postes de responsabilité